en tant que observateur footballeur euh, parce que je euh, parce que xam nga euh, qualifié huitième de finale adversaire donc ñoo suivre un petit peu Angleterre poulom Angleterre poulom presque premier donc bon football je sais pratiquement moom euh, championnat bi gëna relevé ci ci monde bi mais bon championnat là aussi bo xamni euh, presque ñiko composé aussi bo euh, am na ay euh, étrangers yu bari bari étrangers yu bari yu composé championnat anglais bi mais malgré ça aussi équipe nationale bi équipe nationale bu bu baax la xarañ na parce que buñu xolé dernier euh, Ligue des Nations yooyu tout ça ñoom ñoo dem ba finale ñoom ak Italie donc équipe bu baax la mais comme euh, suñu joueurs yi ak entraîneur bi xam nañu football anglais bi bu baax a baax a baax a baax actuellement donc euh, suñu joueurs yëpp ñi ngi ci forme boo xam ni amul benn équipe boo xam ni nekk na seen kanam ba joueurs yi du titre suñu joueurs yi actuellement dañu am confiance am euh, motivation ba am mental pour ñom mental bi ñu andal actuellement ku ñëw seen kanam mën nañ la gagner malgré ça va être un match difficile parce que bo demee ba jàll euh, de finale éliminatoire direct la mën nga jouer mën nga dem ba 90 minutes wala mën nga dem ba 120 minutes wala mën nga dem ba série donc yooyu staff technique bi préparé na mentalement ci ci bop xalé yi donc xale yi pare nañu xam match bu am importance la té ñom ñëpp dañu am envie gagner match bi. comment gagner nan la nan gagner bi nan la. comment gagner il faut que ñun déjà suñu équipe ñu appuyer wu ci force mhm. suñu équipe bi ñu am actuellement moy au niveau déjà mental au niveau détermination parce que boudé talent rek amnañ talent anglais pour ëpp ñu talent amnañ ay joueurs yo xamné amnañ talent pour mën a anglais donc euh, ñetti paramètres buñ ko buñ ko indé ci match mettre les anglais en difficulté anglais aussi ay équipe la équipe euh, pratiquement l'équipe nous défendre dañuy attaquer rek anglais nak donc de attaquer donc euh, l'équipe moy dina am ay espace l'équipe de de l'équipe té ñun joueur yi ñu am de espace une vitesse ak seen technique mën nañ différence donc loolu daal suñu avantage contre anglais yi. côté Sénégal yow l'absence de Gane Gueye euh, est-ce que ça peut peser. Ouais, ça, puissance de Gane Gueye, c'est vraiment dommage parce que Gane a à, à bien monter en puissance parce que euh, deux derniers matchs, mais quand même, euh, il, il était vraiment au top, tu vois. Il y a des garçons qui peuvent le remplacer. Donc, euh, au milieu de terrain, il y a possibilité de faire jouer euh, il y a Nampalis, il y a Patessis, éventuellement éventuellement Sar Donc, euh, on va faire confiance à Aliou pour réfléchir. Mais c'est vrai que Ghana, c'est un élément quand même bon, qui a une importance quoi quoi Parce que bon, c'est l'eau. Euh, matchu Qatar bi ak matchu Équateur bi pratiquement moom mooy déclenché pressing yëpp moom mooy déclenché ba nit ñi mën a de pressing mën a yëpp moom moo koy déclenché donc après c'est à notre coach de gérer ça pour euh, keneen ku mën a jouer rôle gànn gay boobu ci biir euh, biir terrain bi quoi parce que am na importance